santaat yàlla bu baax bi ñu Serigne Touba dimbali ko matal ba mu tàbbiwaat ci suñu biir waxoon naa ko daaw jéeg ci ñu dénk ab sàmb muy am néeg mu defar ko ba mu mën a nekk ëtt wallaay buñ ko joxee réew mi dootu sonn kenn dootu tàyyi kenn dootu dam ku nekk xamoon na Kaolack gi ak Kaolack gi bërki démb ak Kaolack gi tey. loolu dëgg la. tànki kanam yi feeñ ci lool te nit su yore la yóbbaale. Mhm. daa sax xel dal ni ko amee oto dana yóbbu. dëgg la. su ko neexoon. Mhm. bu dee teraanga yi àdduna rek. Mhm. day toog moo ki bokkam. wallaay am na ko. yàlla dimbali leen. ba keroog ñi génn àdduna yàlla na yéex. ñu teraanga. waaye yàlla dani ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngal mhm. te sëriñ ko xam-xam ne jàng na ku nekk xam na ni am na daara di jàngale mhm. ba noppi yàlla dogal mu am xéewalam indiwaat ko bokk ko ak ñoom Sénégal nag manqué dara lépp luy développé am réew am na fi kon lan mooy problème bi ba xale yi di jël gaal lan mooy problème ba ñuy jël avion yi dem ay micro quoi ñi ko yor ñoo ko tegut ci liñ ko war a teg ñoo ko defut fi ko war a def. dëgg la man jàpp naa ni ñun ñii. yàlla mi ñuy dimbali ba may nañu lépp yàlla mu ngi ñuy dimbali ba indil nañu ko nangoo liggéey ku yaru ku jàng alxuraan. lillaahi wa rasuuli na leen ànd ak sëriñ bu jox ko sunu loxo ñu bokk ndey bokk baay suñ ko defee kenn dootu ko rëcc. incha allah sëriñ bu bi ñuy def lii suñu xel demut ci xaritam bi communicateur am bi hmm. nawleem bi man du ma wax géwal nawleem laa wax ndax ki nga àndal di liggéey sam nawleem dëgg su ñëwee ni jox leen ma lettre ma jox ko sëriñ ñu jox ko lendemain mu ñëw def lii mu def hmm. tudde nañ fi ay nit jox nañ fi nit lépp loolu foofu lii mu sëriñ jox jox na ma ni nit nag day gore dëgg la wokk na nga ko xori ku bippee na ko woo sëriñ woo nañu ci teraanga hmm. woo nañu sutura woo nañ ci ànd liggéey ñun éleveurs yëpp dañ leen ànd delloo sëriñ lii mu jox ndax suñ ko defee duñ ko rëcc xam naa ne buñ joxee sëriñ réew bi hmm. dootuñu am problème mu xont dootuñu am problème mu vol yooyu yëpp seen ñi ne ko saafu ndax xam na li yàlla wax ci alxuraan jàng na yaru na liggéey na avant muy lay réew man xam nga kan laa gëm ci ni kaay leen topp ba te defoo fi dara politicien yi bëri koo ci gis barki démb da doon luy amul kër gum moom su nee joxleen ma na seen ma téel leen ko bëgg a lekk suñu xaalis te bu dee xaalis ak teranga sëriñ am na ko ba doy bu ma guddal kàddu gi hmm. gor daal daa war a gore sëriñ nag suturaal nañu ji nañu wor kon ci samay kàddu ci Baye Bada laa koy sos Baye Bada musuma xam ku la jam naa ni ba tey da jiital Abdoulaye Ndongo waaye yaay sunu baay. Hmm. yaay sunu président yaay sunu idole yaay sunu lépp. fu ñu sëriñ bu woo nan ko fa wuyu. Hmm. ñun amul lu dul ku ñu dimbali sunu élevage bi ndax mooy sunu teraanga. nan leen boole sunuy carte ak sunu xool ak sunu lépp delloo ko sëriñ lii mu ñu woo journée bi ñun ñëpp dañ leen def mobilisation dem wuyu ko bu ma waxee pare nag dinaa sant xale yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi mu mel ni Cheikh Diakhaté ak Pam Ndiaye beeg ak Gold. waaw ak ak ñi mel ni ñoom. yaa gore ba noppi téel ñu élevage. yaa gore tax ñu mën a def. Hmm. kàddu yi du ma ko guddal. dëgg la ci njëkk a hmm. a ñàkk deretam te naqari woo àttal. ak bari jom waaye daal. barki Serigne Touba ak fukki réew mi nii man tamit si tey. looy def ak yow